bu kilifa gi joxee ndigal rek dañuy génn tëj marché bi yëpp tey def journée boo xam ne ne bale spécial sàppal ñu raxas marché bi service d'hygiène na génne leen mbalit mi nee na mbalit mi oto yaa ñëw pour tànn mbalit mi ñu loolu lay ñaan nag ngir yàlla mbalit mi bañ fay yàgg dem am bi balaa suba mu set municipalité Tivaouane euh, maa ngi dégg monsieur le maire li mu waxee sànq man ànduma ak moom ndax nee na dañuy xaw a indi ay détails fi ak ñoom déedéet ñun ak ñoom ñoo bokk lu ñu bëgg ndax ñun ñëpp Tivaouane jak moo ñu moo ñu moo ñu moom lañ bëgg te yaakaar naa Tivaouane jak faaw tey see ñu koy waxtaanee mais duñ toog ba bis ñii taxaw rek ñoom ñëw taxaw wax seen i message jàlle ko dem bu paree pare nañ ci. donc loolu moo tax euh, defuñu sax tey marché priorité parce que normalement lii dañoo waroon def marché bi tey priorité maanaam camions yi duñ dem fenn du ñu dem benn koñ lu dul ñoom ñëpp ñëw ci marché bi en tout cas mën a jël mbarit mi comme ni mu waree mais incha allahu rabbi malgré am na ay contraintes malgré waa koñ waa Tivaouane ñi ngi bale. waaye léegi nii fi ma taxaw woo naa ki nga xamante ni mooy responsable g euh, muy euh, mbay mu boole maag sëy ki nga xamante ni moo yor camion yi nee na ma camion yi ñu ngi fii champ de course ma ne ko damaa bëggoon nga déployer leen tout suite ñu ñëw marché parce que mbalit mi mi ngi si kaw tali bi mu ne ma incha ngi ñëw léegi ma ne ko est-ce que mën ngi ñëw mu ñu ñëw danser bu la bu la neexee yow taala sooto nga dem fekk fa manaar mi ngi fa nga jël ko indi ko mu ñëw commencé jël mbalit mi kon mën nañ yaakaar ni incha allah rabbi ci ci marché yooyu noonu wax ñoom liggéey ut ko ci marché bi kon amul njariñ bu indee cinquante ci marché bi dañ leen war di contrôler ba xam ndax ñoom ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu mais indi cinquante ñu xëy ci kër ba wàcc jot ñu wàcc dem ñibbi Euh, wax dëgg yàlla bu fekkoon liggéey nan tey coono bi ñam ni duñ ko am waxante ma ba tëj ca marché buñ ko dee wax municipalité moo tax ndax ñene ci marché bi ñu ngi liggéey di fay juuti comme ñu ngi fay juuti na juuti boobu ñuy fay nañ ñu retourné ñu luyal ay camion duñ ci wutal ay seret mbalit yu ñëw di tonni mbalit mi di ko jël di ko yóbbu eh, loolu ci leen dëkk Asia loolu ci leen dëkk je pense que tey jii eh, président ngi nii du ma bàyyi ma wax leneen mairie am na ay jeunes yoo xamante ni da leen a jël chaque jour ñu xëy si ci mairie bi eh, astafurlah ñu xëy si ci marché bi waaye peut-être problème bi ñuy am problème évacuation dinañ ko balee ba pare les mais camions yi peut-être c'est rotation ni ñuy tourner moo tax ñu am pour évacuation mais euh, jàpp naa ni loolu euh, euh, système la rek ak organisation comme dem nañu bay bale incha allahu rabi dinañ ko dindi à chaque fois yoo xamante ni am nañu en tout cas les moyens nécessaires pour nous di wax ku nekk xam na mairie amul camion amul camion chargeur amul camion benn ñun fekk ñu ko fi bokk te xam naa ne loolu ba mu fi gëjee am ñun ba ñuy gone ca oto yu oto oto mbalit yu njëkk ya yooyu xamoon nañ ne amoon na fi mais at yu mujj yëpp ku ne xam ne mairie amul mais ay nañ ba am benn protocole ak benn euh, euh, projet boo xamante ni tey jii mi ngi gérer li nga xamante ni moom mooy mbalitu Tivaouane. mais nañu bàyyi nax gi ñuy nax waa Tivaouane. Diagne Sy Mbengue ak ñi mu fi teg nañ leen wax dëgg. waa Tivaouane ci ñoom ab nag maire boo juddoo ci dëkk yeroo fa màgge fa yàlla dimbali la ñu yëkkati ndombo dëkk bi yëpp jox la nga yilif ñëpp koo defal mu def koo ni baal mu bàyyi kon jaadu na wax dëgg yàlla à chaque fois ngay def loo xam lu rafet la mais nag ñun waa marché bu bees kontaan nuñ ci maire bi Diagne Sy Mbengue kontaan nuñ ci entourage am ñoom ñëpp mais nag ki gañ a bi moom moo koy doxal mooy Diop si moo gañ a bi moo tax mu jël ay booyam ñu koy doxal waaye programme mu maire bi la mooy troisième programme bi nga xam ne UCG mi ngi koy doxal avec euh, en collaboration avec la mairie. Euh, marché bi nañ bàyyi Diop si xel xam nga nit ki ku defal lu baax il faut bàyyi ko xel toll woon na foo xam ne si marché bi nit mënu fee dugg ñu sollicité Diop si ñëw Diop si defal leen ko mais mbalit mi si biir marché bi. comme ñoom ne euh, si ma tudd maire yi ñoom ne am nañ équipe bu nu bu nu détaché cinquante personnes. jàpp naa cinquante pour cent fu nekk fii si maire si marché bi yaakaar naa mbali wuru fee am mais kon ñun dina jël suñu matuwaay incha allah avant gàmmu et après gàmmu pour suivi bi ànd ak UGC lënkaloo ba nettoiement euh, marché bi ñu koy boole si programme bi nga xam ne chaque mois bu oto yi ñëwee ñu jëf ko priorité boo xam ne dañ koy tonni boo xam ne mbali du fi am. muy Mass Diagne ak mboolem ñu ànd liggéey kontaan nañ ci ñoom nañu li dimbali nit ñu liggéey dëkk bi kantin yaa ngi nii fi ñu tojoon ba léegi falan yem. yeggale wuñ fi lenn mbalit mi looloo gën a indi problème pour mbalit mi génn mbalit nag boo ko dee bale dafay jaadu boo ko yëkkatee fii nga am feneen foo ko mën a dem teg mais mënoo jël mbalit rek bale ko delloo ko ci biir marché bu yàggee mooy sax delluwaat ci biir nit ñi kon nag loolu nañu ci dimbali bu baax a baax a baax. na li fi nekk ëpp na 10 camions te bu du semaine tamit balaa ganu ñëw. bu fekk marché bi sedut leer nañ li ñu gën a ñaan daal instant yi maire moo ci des pour taxaw pour lépp loo xam ne lu marché laaj la ci wàllu set sécurité ak lumière ñu taxaw ci dimbaluñ ci. ñan ak ñan ñoo ci doon jàpp ci wàllu ci set ñëw sapeur wala. Euh, waaw jërëjëf ñi jàpp ñi ëpp solo mooy waa marché bi d'abord ndax woote ñu wisi la yombul te vraiment bi nu wootee ñëpp ñëw na wuy sunu marché bi yëpp génn ñu bal li man a bale vraiment marché bi instant yi na mbale yaa ngi jële sapeur vraiment na ci kilifa gi boole nañu ak ay agent am ñu ñëw bi yëpp euh, service d'hygiène ñëw na ak seen agent pompé nañu def na li war def lépp vraiment ñëpp jàpp nañ ci mais daal nañ jàpp ni lii moom ci diir bii rek la waaye ci kanam bu ñu fi yàlla bàyyi ak jàmm que ñu fekkee ko mu fekk ñu nekk si mairie bi wala ñu ñàkk a nekk ci mairie bi projet bi moom taxaw na